mën a am ay part de marché ci ZLECA muy zone économique bu Afrique bi nga xam ne un milliard deux cent mille de personnes ñoo fa nekk. ñun ci loolu la war a góorgóorlu et non du souverainisme ça c'est du ça c'est du protectionnisme débile. Ah. jëm amul njariñ mooy li ma la encore une fois dañu fay nekk di répéter ay concepts xam ne depuis 1960 kenn waxatu ko. dégg naa sax léegi dañoo bëgg a créer coopérative waa ji naan eh, commune bu ne dañu fa dem yow Ndiaye nga sant ki sant Diop. dem leen ngeen dem ci mbedd mi mango bu ngeen jënd mango daa am borom. Mm-hmm. nit jéem a defar coopérative pour nit ñi di ca bokk lu ñuy liggéey loolu waxu caaxaan loolu mooy li Union soviétique di daan def les xool xoos ak li Mao daan def ci révolution octobre adduna bàyyi nañu loolu nit ñi ngay joxe fexeel programme yi leen wutale ni moyen ñu mën a liggéey seen bopp. waaye ku fi wut tool tol ba mbooloo di bokk tool ba dina boy nit boo bëggee mu liggéey da nga koy jox loo xam ne bu ko liggéey moo koy moomal boppam. justement ci foncier bi lan moo sa jàngat par rapport ak li fi jotagum xew ay liggéey yu ñu arrêté fii ak ñaari weer dénk ko commission ADHOC ngir saytu euh, nu ñu amee euh, immeuble yooyu ak itam ndax kayit yi nan ko amee jar yoon ci mbirum foncier bi ak la descente du chef de l'État. waaw xam nga xam nga xam nga Bassirou Diomaye Faye dañu fee dig. laam bi jubal laam bi jubal ak jubal. waaw. waaye lim li mu wane mooy wane na ni jubut jubal jubantiwut. jubantiwut président bien sûr. ba article quatre-vingt-huit du traité. na yow na yow lii ci littoral bi mu xëy xëy moo Ousmane Sonko ñu arrêté construction yi. Mm. loolu c'est un abus de pouvoir. gis nga nit ku wàcc yoon yoon a koy tegaat ci yoon. Mm-hmm. ñoom li ñu waroon def def seeni enquête. ba xam ne am na nit ñoo xam ne fa ñu dëkk waruñu faa dëkk fañ tabax waruñu faa tabax su boobaa justice mooy autorisé ñu arrêté construction moo koy détruire mhm. état de droit lañ ne état de droit ñëpp war a sukkandiku ci loi y compris le président de la République et son premier ministre le président ñoom ils ont outrepassé leur prérogative benn président la bi xëy nañ mu dàng dàng wuti def naa day seet suuf sa lu tax nañ ko saax-saaxee bala woon a dem danoo war na lijjanti nu mu def ba am 4 hectares sànjara ci sànjara ba am na fa 4 hectares yéen ñëpp dégg ngeen Babacar Ngom bi muy liggéey bépp tool bi mu amoon ca Ndengaleer lu ne ko ci teg Babacar moo Bassirou Diomaye Faye mi amul benn emploi saña adem sànjara ñu jox ko 4 hectares 2 Babacar Ngom mii dëkk bu mag muy muy kaas terrain bu mu am ca Ndengaleer moom Bassirou Diomaye Faye am na 3200 mètres carrés euh, dëkk commune bu mu dëkk euh, nu mu tuddati. Njagañaaw Njagañaaw. yow commune ba nga dëkk amoon fa 300 mètres carrés. dëgg it maa ngi yow. Ah, am naa ko Touba nag tax sama ko jiite. yow maa mu demoon ne day wut lu leer la. waaw lu tax waxul nu ne amoon na fa terrain moom 200 mètres carrés boo xam ne 2007 la ko jënd wala 2009. lu tax moom waxul nu ne. fii fii mu sudee ci kër góor yi xam nga dañoo ne ab syndicat moo ko may syndicat bi ma ko jox yow fan nga fi dégg syndicat buy maye suuf Mermoz am na ñu gis a gis ba gis na suuf soo xam ne moo ko jaay moom Bassirou Diomaye Faye Cheikh Diba ministre de des finances kon mbay sa wewu tànk Bassirou daa waroon na wax li mu yor fu mu ko jëlee ba noppi bi des wax na Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko dama la ba mu koy def mu fàtte kër gu mu jëndoon 2008 2018 mu jaayee ko 100 millions Bassirou Diomaye Faye danoo waroon na wax mbir moom fu mu ko jëlee wax na ñoom ñoom moom ak inspecteur des impôts yi ñaata terrain lañ leen jox ci lotissement yi am Sénégal syndicat ñaata terrain lañ ko jox lu tax ñu doon ko ko jox ak lañ ko jox nu mu ko def mbay ci sa wew tànk Basiru bëggee jubal na jubal boppam ba pare bëggee jubanti na jubanti ko ba noppi. waaw ci wàllu boobu sax. wa euh, déclaration de patrimoine nga xam ne constitution bi moo ko digle président dafa war a def déclaration de patrimoine am devant le conseil constitutionnel même ci mbiru baaxee ñu ngi ciy dégg ne dafa surévaluer patrimoine président léegi yow mi nga xam ne législateur nga. te loolu yaakaar naa ne bi ñu koy def ci constitution bi. yéen ngi woon assemblée mais aussi euh, of nag tey premier ministre yenn ministre yeeg yenn directeurs yi war nañ fa def déclaration te ba léegi dégguñ ci dara. est loolu du indi ay erreur ba nit ñi di def. surévaluation patrimoine président Diomaye Faye en tant mu def déclaration patrimoine bu ko defee da koy jox conseil constitutionnel. waaw conseil constitutionnel moo koy siiwal loolu yëgaguma ko. waaw déclaration bi mu defoon ci biir campagne bi la ko doon def c'est de la démagogie pour bëgg a wax nit ne moom ku set la. ku jub la bi mu ko génnee nit ñi dañ caa gis lu leen ndax yor na terrain fii ci kër bi mu dëkk 200 mètres carrés même kër gi sax nee na daa gaaw ko moo tax xamul lu mu jar. xam naa kër bu 200 mètres carrés mère moom koppar yu bari a doon. moom moo ko jaay Cheikh Diba. xaalis ba anamu wax na nu daa benn benn xaritam bu ko lebal 100 millions na nañu wax 100 mille pounds non pardon 10 millions. nañu wax xarit boobu kan la ba bokk ci gouvernement bi. ak 4 hectares yi ma am Sandiara ba loolu taxul mu def le maire de Sandiara ministre. yooyu la <laughs> daa war a leer maintenant pour déclarer seen patrimoine pour le moment la mu bind ci déclaré woon ko ci biir campagne bi loolee moom la ñu waroon a leeral lu mu doon. mais loolu officiel la gul que defu ko ci conseil constitutionnel. non d'accord naa ci loolu xam nga kenn laaj boobu danoon def démagogie. Hmm. bëgg ba nit ñi ne ku jub la mooy baat boobu ñu tudd xam nga nit ki bu ne nañ nañ jub jubal di jubanti borom xel yu raag yi dañuy def daa jub. te dama lax nit gën te gën ab huit Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ak beaucoup des jeunes. alors suufu réew mépp ñoo ko saax saaxee suufu Sénégal ñoo ko saax saaxee alors président ci gestion du patrimoine de l'État SOGEPA euh, la ñu dénkoon euh, liggéey bi def na nag bilan des cessions des immeubles pour jox ko Ousmane Sonko waaye il s'est que ne ay proches du pouvoir actuel sont parmi les bénéficiaires. mooy ñoom ñoom est-ce que jàpp waaw est-ce que jàpp nga ne yoon peut-être ñoom daañu dem jusqu'au bout. ah góob ndax waa ñu saaga Diomaye bay ndey ba léegi mu ngi doxee soxlaam te ko non xam nga xam nga moom man ñi may jaaxal mooy ñi gëmoon wax jàpp ne li mu doon dig ñi ci njubal ak ak jurubti dina ko defante la quand même. et pourtant ils sont 54 pour cent. mais bien sûr mais bien sûr mm-hmm. ñoo fal ay caaxaan. parce que nag yow Mohamed yaa ngi ko woon pendant 10 ans Ousmane Sonko fenn loolu fi nekk. yow Ndeye Fatou Ndiaye ñu interviewé ko 2007. Mm-hmm. mu ne la gouvernement bu Sénégal mi ngi manque pétrole bi di ko jaay bitim réew. plateforme bi defal war a defal seen pétrole ba léegi liggéey bi noppi. dañuy seet moom yëpp wax mais est-ce que Sénégal aussi que li ma wax dëgg moom mii la toog mi ngi nii. man la jigéen jigéen ci l'islam matu seen waaye ci ci démocratie mu ngi manque ko jaay tur dara du jib dëgg ñu topp mu ne Mamour Diallo daal di dina 94 milliards. ba ba buuf tabi di wal Ousmane Sonko du indi preuve yooyu muy feni neen mu ne yor naa document bu taxal ma mbay rapport IGE bu taxal ma mbay benn 9 milliards ñu woo ko tribunal mu daw léegi mooy premier ministre président Diomaye Faye nañu nañu déclassifier rapport boobu dara du ci dëgg mu ne yor nañ projet boo xam ne 4000 cadres ñoo ko bind saafara Sénégal yépp a ngi ci tey jii bi ñu ba toog li nga xam ne binduñu dara dara du ci dëgg gis nga fen yu mel noonu ku la ko fen soo koy su su lay wax ne dana def lu baax nga di ko gëm c'est que yow nay waa ñu wax na politique nag mm. léegi président Moustapha Diakhaté léegi fan la bokk parce que ah, fii ci Sénégal <laughs> opposition non mais opposition fan ci APR non non pas du tout non affaire xam nga dàqoon nañu bari waaw mais fan ma dàq affaire léegi mm. waaye nag maa ki nit ah ñu ngi am na lu ñuy waajal. Mm-hmm. ah Macky nit am na lu ñuy waajal parce que na ñun dañoo fas yéene nekk opposition damaa bëgg fas sa nag teg sama tànk ci mbirum opposition bi li ma avocat bu bëgg mu bàyyi mm-hmm. léegi nag damay waaj a teg sama.